ah kii bi la maanaam xam nga da ci am loo xamante ni mental la xam nga da ngay gis même si politiciens yi ñu naan politique fii la yem xam nga Sénégal suñu rapport ak diine la ñu war a xool sax d'une manière générale ñu su bari dañu jàpp ne diine maanaam si jàkk ji la yem. waaw kay mooy li diine comportement la. comportement la tey yonent bi sallam ci benn xadis dafa dafa ne al muslimu man salima al na min lisaanihi wa yadihi mu ne jullit mooy ki nga xamante bi nit ñi mucc nañ ci ayu làmmiñam si loru làmmiñ ak loyu làmmiñam ak loxaam mu ne al muminu man aminahu naas ala maalihim wa dimaahim mu ne ki gëm mooy koo xam ne nit ñi wóolu nañ ko dénk ko seen alal ak seen der nga xam du ci teg xam nañ ne yow ci sama der moom doo ko mës a yàq loolu mooy comportement social tey jii même jaamu yàlla yi ñu def julli julli dañu wax ne pour purifier l'âme nit ki la pour que mu am comportement bu exemplaire koor même bi ko yàlla ay farataal loolu la wax dama dig dama farataal ci yéen koor ndax bu ngeen ci génnee ngeen am un meilleur comportement mm-hmm. aj màkk tamit même chose wax maanaam euh, euh, acte culturel pratique yi ñu def yëpp c'est pour maanaam defar suñu comportement ba bu ñu duggee ci société bi suñuy interagir ñu gis ne ah ki may jëfal nit yi maanaam croyant la am na maanaam étit bu baax moo tax même ci hadis yonent bi dafa wax ne li gën a diis ci bàmmeel ci ci balance lu ñuy posé si jëfu jaam yi mooy jikko ju rafet mm-hmm. mooy mu ne tamit nit mënul am Euh, diine te du am jikko ju rafet mais ñun dañu jàpp ne euh, diina ji si jàkk ji la war a yam wala ci xew yi la war a yam par màggal gi fekk ne déedéet comportement la boo xamante bi dëgg la nit matul mën ngay def léeg ay ay njuumte waaye nag da war a fexe ba salu ay baax ëpp ba xam ne ku lay gis xam ne yow mii maanaam pratiquant nga mm. dangay pratiquer sa diine mais bu fekkee ne si jàkk ji sax mën nga fa dem peut-être ñu jël fa sa portable wala ñu <laughs> sa dara waaw kon julli bi amul njariñ julli bi waaw ñu tafu la waaw ñu tafu la kon nit ñi war nañu xoolaat waaw suñu comportement xool suñuy jikko ba i kër ñu la fay def lu <laughs> noo xam ne bu ne sa kër sa doog fa def <laughs> boo nekkee lu ne nga laaj da ngay toog da nga da ngay nekk buur waaye teg ci te wax dëgg yàlla jaayante la ay jaayante la te ki nga xam ne moo wax dëgg yàlla dafa daf daf dafa dafa jël bés boobu ne am na leneen lu ñuy jàngal au delà de parce que man mënumaa dem ci boo xam ne xaw ma dinaa yeggam du ma yegg ba pare ak tamit li ci ëpp importance mooy bi muy dem noonu 18 safar dafa wax ne damay dem ngir maanaam am daraja ju tax ma mën a ràmm samay nit maanaam sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li xaw mi wa an akuna xaadiman li daw fi daw mi maanaam am dara joo xamante bi ëllëg may tinu sama askan. Hmm. loolu ñu war ci jàngatee le sens de l' intérêt général. te ji en tant que leader acte yi ngay posé dafa war a nekk dans l' intérêt. de ta communauté comme le disait Kant comme le disait Emmanuel Kant même bi mu ñibbi si loolu wax ijaal rujuu yi ila qawmi sama peuple sax wax baatu xawmu mooy peuple ci français defal sama dellu gi may dellu Sénégal hmm. mu nekk maanaam mbégteem ak tamit euh, euh, tax ak sama nit. sama sama nit mooy le peuple sëriñ bi def loolu dafa foroon ci moom même même boo xoolee exil Mauritanie bi mhm. tubaab bi xam nga dañuy jàng la sociologie nit ñi ñu ne woon nit ñu ñuul ñi fi dañu gis ne ñi fi nekk ñëpp am na ci benn tarixa arab bu ñu bokk mu ne kon sëriñ bi bu ngeen ko yóbboo Mauritanie mhm. maanaam dana bàyyi li muy woote mhm. far moom ndekete bu demee foofu la ko yàlla joxe ak tarixam fa la koy joxe wérdu murid wérdu maxuus fa lay amee maanaam officiel ne am na wérdu xam nga sëñ bi bi muy woote lépp amutoon amutoon amutoon dafa ñëw di yeesal diine mais Mauritanie lañ ko joxe wérdu maxuus nga xam ne mooy moo mu nekk am confrérie mottali ñeenti tarix yi fi amoon kon dem na foofu wan leen ne maanaam comme ni nga ko waxee ci Masaalikul Jinaan yor der bu ñuul tekkiwul ne nit ki amul compréhension bu kawe wala tekkiwul ne amul mën a mënta am cër bu cër bu kawe mm-hmm. dem ba mujj ñoom naar yi ñooy mujj di jébbalu ci moom